lolu mom dama ci contane xam nga euh euh dafa nek ci euh, lo ak euh, ay defi, defi yu defi yu xamne ne défi ñu ngi wax environnement gis ngeen euh, désert bi ni muy commencer ñu ngi wax aussi li ñuy wax changement climatique gis ngeen geej gi ni muy avancer gis ngeen garab yi ni muy newé te garab nak ak doomu adama seen dund mom dafa dafa dafa dafa mënta bañ a donc doomu da fay soxla garab Euh, te garab dafa baax ci réew loolu moo tax président lancé euh, PS vert PS vert bi nag volet yu am solo la am ci ci reboisement agroforestation ñu jox ko ministère de l' environnement mu ciy def liggéey bu mucc ayib tey euh, en tant que maire de la commune de Thiadiaye ñu am mbégte bu baax a baax di ko dalal fii euh, di ko di ko que ak pas-pas bi mu andal àndal euh, ñu ak population ak conseil yi jeunesse bi di profiter de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse li ñuy def pour nous, la ñu nous ba nga bi nga d'abord ressources naturelles nous ñu gën ko consolider gën ko cadre de vie bi gën nous nag ñun avec le ak président de la république à travers le ministère de l'environnement pour réussir. ko réussir mais profiter ci occasion pour féliciter l'association euh, des jeunes pour la rénovation de Thiadiaye ART xam ne Khadim moom jël projet bi porté ko wax dëgg yàlla ñu ngi di féliciter di wax déjà am programme de bois communal bu ñuy permettre ñu am benn poumon vert au niveau de Thiadiaye xam naa ci ay fan yu néew dinañ délibérer pour délimiter surtout bois communal bi mu nekk lu mu tuuti tuuti deux hectares yoo xam ne nii dinañ ko mën a defar bu ci amee concours ministère environnement ak ministère de l'urbanisme pour que bois boobu nekk le poumon vert de Thiadiaye mais duñu ñu yem foofu dañuy bëgg tey euh, incha allah instaurer ay ay ay ay motivation ay émulation pour que jeunesse bi ak population yi ñu xam ne lii njariñ moo si nekk loolu nag euh, euh, commune bi dina def ay prix euh, pour euh, pour Cagne quartier bi nga xam mo ëpp ay arbres yi ñu reboiser depuis le lancement de ce programme Cagne aussi euh, ASC yi nga xam ne ñoo gën impliqué wu ci reboisement bi ba nga xam lool dina tax ASC yi mëna impliqué wu jeunesse mëna impliqué wu programme bi nga xam programme la bo xam citoyen nañ ci wara duggal seen loxo mu nekk programme bu succès. ñu ngi si suñu ñetteli sortie sortie bi nga xam bu njëkk def nañ ko dans la région de Thiès ci parti euh Ndiassane euh, deuxième sortie bi dans la région euh, de euh, c'était dans la région de Diourbel qui nous a amené jusqu'à Touba et Darou Mourti. à ak démb ñu ngi ci région de Kafrine, ñu ngi région de Kaulak, ñu dans la région de Fatik, nous ngi également la région de Thiès dans sa partie département de Mbour avec le maire de Tchadjaï, euh, pour continuer à, à mettre en œuvre li nga xam le président lancé woon le 9 août muy campagne bi nga xam dafa wara tambali mu campagne de reboisement président ci bopam présider journée de l'arbre mom ci bopam sample bopam garab bi nga xam mom lañu la ñu bëss bi euh, booba légui ñu am programme bu am solo manam comme niko président de la république waxé comme ni ma ko bëggee mooy dafa bëgg un Sénégal bi nga xam da fay vert un Sénégal bi nga xamné des fay nat un Sénégal bi nga xamné des fay vert dans les villes feuilles vert dans les villages feuilles vert partout dans la campagne lolu moy volonté lolu moy ambition du chef de l'État Il ko affirmer ci programme il mu réaffirmer ko ci programme bi nga xamné mom moy référence de politique publique moy le P ci euh, axe bi nga xamné mom la PSE e vert donc loolu euh, nek na ay firndé yu ñuy euh, ñu wax ne président de la république euh, nous na koo xam ne alam bi ak euh, environnement place bu bi le ministre en charge des collectivités ak bi le ministre en charge des transports par ailleurs maire de Thiadiaye bi ma bi monsieur le ministre ñun ñëpp ci lañ nekk parce que loolu le président de la république Le président de la république dafa digle ñu def benn campagne de reboisement bu mucc ayib mais campagne de reboisement bi yemul ci reboisement bi année euh, campagne bi dafa il faut continuer pendant les 5 ans donc campagne boobu euh, dañu am njort ni balaa ñu koy réussir il faut que ñu liggéey ak ñi nga xam les élus élus les maires les présidents de conseils départementaux ñoom ñëpp dañu war a joxante ak ñoom loxo euh, waxtaan ak ñoom seet parce que reboisement population yi ñoo koy def euh, reboisement en régie euh, du joxé ay résultats yu yu yu yu yu yu bëri reboisement dafa war a ay action populaire action citoyenne wayé bo reboiser da ngay euh, daal sam reboiser c'est une bonne chose waaye topoto art li nga reboiser c'est aussi benen mbir la gis na légui légui garab yi nga xamné reboiser nañ len utal len outal nañ len li nga xamné mom lañ tuddé gabion

au lieu de au lieu de de faire du football dañuy jëmbat garab loolu nag nekk message bi nga xam ne message bu fort la message bu am solo la moo tax ma bëgg ko partager avec la jeunesse bi nga xam ne fekk naa leen ci loolu. parce que le ministre wax na léegi am nañu ambition planter 3000 arbres ci semaine bi donc loolu nag buñ ko bu ku nekk defee lu mel noonu objectif de 20 millions d'arbres bi nga xam ne fixé nañ ko dinañ ko matal ci ba dépassé ko am nañu ambition comme ni ma ko waxee euh, planter ci avant la fin du mois de septembre 20 euh, millions d'arbres mais nag président de la République faire digle euh, axe routier yi ak axe autoroutier yëpp na am garab donc yaakaar naa ne ki nga xam ne moom moo nekk le ministre des transports mënuñu gis interlocuteur bu gën a valable que moom pour travailler ak moom ci axe routier yi ak axe autoroutier yi moo tax ma am plaisir annoncé fii ginnaaw bi ma waxtaanee ak moom ak ministre bi nga xam le ministre des collectivités territoriales jàpp nañu bés mooy le mardi prochain dañuy tàmbali reboisement de l'autoroute Ila Touba nous allons lu tàmbale Touba ba Dakar loolu nag euh, mun na am euh, nekk na activité bu bëree mais avec la volonté je pense que euh, nous pourrons y arriver bu ñu impliquer les collectivités parce que président de wax il faut que politique publique yi ñu appliquer au niveau de la base au niveau des territoires au niveau des collectivités Lol nak su fekkee ne président joxe na tektal joxe ndigal ma fekk euh, samay natango euh, ministre mais nek aussi ay maire euh, ñu nek ci lolu yaakaar naa def may gën motiver def may gën sawarlo am yaakaar bu baaxa baax campagne bi ñu tambali inshallah dinañ koy eggale ak jàmm ak salam benen bi moy waxtana ak mom euh autorité bi nga xamné moy malik si euh, tàmbale Malick Sy ba euh, aéroport Léopold Sédar Senghor ak moom fas nañu yéene euh, axe boobu yépp ñu jëmbat ko reboiser ko ba mu vert vert comme ni ko président de la République bëggee en tout cas pour faire euh, un bilan ci étape bi nga xam ne def naa ko léegi mun naa wax ne c'est un bilan satisfaisant partout nous avons été accueillis par des maires yoo xam ne génn nañu joxe ay engagements euh, je profite aussi de cette occasion pour remercier et féliciter Boubachabar, la direction des eaux et forêts, les agents, euh, en tout cas, fépp ma dem euh, les maires les gouverneurs les préfets dañuy wax ne sen taxawaay ak sen farlu ci liguey bi nga xamné mom lañ leen denk lool nak da fay nek lo xamné euh, ministre en charge de l'environnement bu ko da fay nek mbégte ci mom parce que ay soldats buñ leen yobé ci terrain bi ñuy def sen liguey comme ni ko le président de la république a yéene aussi gën leen a jàppale loolu yaakaar naa ne lu ñuy euh, euh, mën a euh, waxtaane la lu ñu mën a wax la lu ñu mën a bégee la loolu moo tax maa ngi leen di remercier di leen féliciter ci taxawaay bi di leen wax ne nag taxawaay bi yamul il faut ngeen continuer nekk aux côtés des populations encadrer les parce que population yi am une volonté les initiatives ne manquent pas mais il suffit simplement que ñu encadrer initiative yi jàppale leen ak li ngeen am comme ay moyens yeneen yi les maires dinañ aussi indi seen euh, seen jàppale pour que ñoom tamit ñu euh, indi seen ñu bokk ñun ñëpp pour que li nga xam ne moom mooy suñu objectif ñu atteindre ko en tout cas je terminerai vraiment par remercier euh, sama collègue le maire de Thiadiaye ci accueil bi ak ci disponibilité bi ak ci engagement bi ak ci accompagnement bi nga xam ne dogoo na ko ak ak ñun euh, pour atteindre l'objectif yi nga xam ne président président de la république fixé